mës a juddu sallallahu alayhi wa sallam doom ju mel ni moom ci teraanga mës a juddu sallallahu alayhi wa sallam doom ju mel ni moom ci jege yàlla ak xam yàlla ak bëgg yàlla ak jaamu yàlla ak nangul yàlla mës a juddu ci doomi aadama de doom ju mel ni moom ci taar ku taaroo ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mës a juddu de waaw doom ju mel ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci njàmbaar lépp loo xalaat rek ci lu baax yonent bi moo ci gën de kooku mooy Muhammadam Zahir mi nga xam ne moo taxawee chariatu waaye ëmb xaqiqa de waaye muhammadam baati nag moom kooku jiitu na waaw xam ak mbindee fi de kooku mooy xaqiqatul muhammad yéene bi nga xam ne moom la ñuy wax atajali lawal di ko wax xaqiqatul muhammad yo di ko wax duratul bayda tuddee nañ ko tur yu bëri ci làmmiñu sufiyanke yi ak wëllu yàlla yi ak yonent yi ak jaam yàlla yi de kooku mooy yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wasallam sallam mooy ki nga xam ne moo dox diggante yàlla ak jaam yi de lu yàlla di maye ci moom lay jaar de boo ko seetee ci zaahir dundam gi am na fu mu tàmbalee am na fu mu yem de waaye boo ko seetee ci baatin nag moom kooku mës ta dee te du mës a dee sallallahu alayhi wa sallam de ndax mooy ruhul arwaax yi mooy ruhul wujudi de sallallahu alayhi wa sallam de moom la bàyyi di tagg nag ci xasida bi di wax nuuruhu awalul wujudi daa foofu asul usuli wala njaali de leeram gi moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo cosaani cosaani de moo cosaani ndey ak bàyyi moom mooy ki nga xam ne mooy njëlbeen mi daa foog na ci am kooku mu bàyyi lim tàmbalee téere bi mooy tagg ko tagg ko ci cofeel tagg mbëggeelam laa laabal ko tagg cofeelam ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak i saabaam ak i dëkkaaleem de wane li ko yonent bi jaral waa mu soog a ci leer googu de mu ne iddikaaru laxbaa bi bëlbëla baale yi bàyyi mooy wax iddikaaru laxbaa bi fàttaliku soppe yi bëlbëla yëngal na baale yi sama xol de ana lan moo ma teree nelaw man bàyyi kenn terewu maa nelaw ku mooy muhammad sallallahu alayhi wa sallam kenn këfut sama xol bi ku mooy muhammad sallallahu alayhi wa sallam kenn newut sama xol kenn feesut sama xol bokk ko kenn sallallahu alayhi wa sallam ana lan moo soloon sama itte nag ana lan moo soloon sama yaram te solon googu neex ma lool moo yonent bi sallallahu alayhi wa sallam de solon na ma waaye solon bi neex na ma de munu maa nelaw ngir moom sallallahu alayhi wa sallam foo mu fekk rek maa ngi xalaat ci yonent bi maa ngi xaatir ci moom maa ngi nekk di yonent bi sallallahu alayhi wa sallam de ci mbëggeel ak leer de yàlla moo wax ci alquran ne laqad jaakum dikkal na leen jógee ci yàlla rasulun yonantu de man yàlla maa yónni yonantu mu bàyyee ci man waaye ci yéen laa ko génnee yéen doomi aadama yi de mu nekk nit comme yéen sallallahu alayhi wa sallam harisun aleykum bil muminina raufun rahimun yonantu boobu ku xér la ci yéen yéen jullit ñi waaw yéen gëm yàlla yàlla moo ko taggeeralu rawfun ku am yërmande la rahimun ko am yërmande ko am ñëwante la ci yéen yàlla nee kenn amul ñeneen ñëwante ni yonent ni ni moom ci yéen doomi aadama yi de kooku yàlla ko tëggee fa in tawallaw faqul hasbiyallahu laa ilaha illa huwa alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim mu ne ko nag xéeféeri màkka yi bu ñu wanee gannaaw yow bu leen faale waaw wakkilul ci yàlla rek xam nga yàlla mooy yàlla waaw te dinaa la dimbale de yàlla doy na la de yonent boobu sallallahu alayhi wa sallam moom la bàyyi di fàttaliku ci ay guddeem ca Koosi waaw ci njëlbeenam di wax ne maa ngi fàttaliku soppee rek fàttaliku yi may fàttaliku soppee nag moo yëngal sama xol moo yëngal sama xel ba mënumaa nelaw ngir yonent bi sallallahu alayhi wa bi samay nagu bët te mii ma ngay dotti mooy baag yi ba tamit la ca namm li dal yi da nga li dal balbaale ci gën yëngatu de bëgg gi ma bëgg yonent bi te yàlla tax te yàlla moo nañu annabiyu awla bil muminina min anfusihim képp ku gëm yàlla yonent bi moo la war a gënal sa bopp de loolu yàlla moo ko warlu ci kaw jaamam yi de képp ku wax laa ilaha illallah muhammadu rasulullah kuy mbindeef rek yonent moo la war a gënal sa bopp waaye ñi gëmuñ moom yàlla faalewu leen ñi gëm la yàlla di waxat ñi gëm te gëm yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yonent bi yàlla nee na leen yonent bi moo la war a gënal sa bopp de kenn ci saaba yi ki gën ci saaba yi gannaaw aboubacar siddiq muy omar ibnul xataab radiallahu anhu ànd ak yonentu sallallahu alayhi yonentu ne kenn du gëm mu dul ne maa ko gënal waaw lépp lu lépp lu mu am de mu ne ko yow yonentu bi yaa ma gënal sallallahu alayhi yaa ma gënal samay doom yaa ma gënal samay jabar yaa ma gënal sama alal yaa ma gënal lépp ñépp ba mu des sama bakkan bi nekk sama diggante ñaari bakkan yi de yonent bi ne ko déedéet sañ nam des na de kenn du gëm ci yéen lu ne man maa ko gënal bopp ay doomam maa ko gënal ay jabaram maa ko gënal xaritam maa ko gënal ay waajuram maa ko gënal alalam maa ko gënal bakkanam di ci boppam de Babacar Abubakar Omar ibn Xataab daal di xalaat rek xol bi nangu de mu ne ko yaa Muhammad yaa rasulallah eh yonentu yàlla wallaay bés ni ki tey yaa ma gënaloon sama lépp lu ma am waaye sama bakkan bi rek laa setti woon waaye bés ni ki tey yaa ma gënaloon sama bopp de sallallahu alayhi wa sallam yonent bi daal di muñ ree ne ko wala ana yaa Omar Omar yaa ngi soog a gëm de loolu nag wareef la ci képp koo xam ne nii jullit la nga gëm yàlla de boobu nag sallallahu alayhi wa la bàyyi di wax ne dama ko bëgg bay jooy jooy yoo xam ne su ma leen melaloon ni may jooyee man ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa mel sama bët yi ay baag la muy teen teen boo ci bëggee yoroot ndox waaw da nga jël baag bi sànni ko ci biir teen bi mu wëgg ndox mi génnee ko baag boo ko seetee ni ñuulee noonu def ogg dafa xaw a nuroog bëti doomi aadama moom la bàyyi jëlee nag ci wéy bàyyi dafa dégg yaram lool te bëgg yonent bi sallallahu wa sallam mu ne bëtam yi dafa mel ni ay baag yoo dugal ci teen muy root ndox di ko sotti noonu la ni baag ni ni baag bi di sottee ndox ci eh, ndab yi ngi koy koy taataan noonu la sama mbëggeel ci yonentu yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam boo ma xoolee fekkee fi may jooyee damay sotti ndox di sotti ndox di jooy di jooy di yëkkat yëkkat kenn jaral lu ma loolu ku ma yonentu bi sallallahu alayhi wa sallam de <clears throat> fashtiyaaqi ilayhim wa ghuraabul bayni aqrat jufuna bi tahmaali dafa mel dañ ne ko lan moo tax sa bët yi di sotti mu ne sama fashtiyaaqi sama cofeel sopp gi ma sopp yonentu sallallahu alayhi wa sallam sopp sopplu gi may sopplu yonentu bi ak i saabaam sopp sopplu gi may sopplu yonentu bi ak Makka gëm dëkkee dëkkoon juddoo fa gàddaayee fa ak ma Madina ngam mujjee ñu tatagal ko yaatal ko gannaaw bu ko ay mbokkam añaanee génnee ko mu ñëw Madina Madina fat ko am muhaajiriin ak lansaar wallaay bàyyi mu ne bëgg gi ma bëgg yonent bi di fàttaliku place yooyu di fàttaliku yonent bi sallallahu alayhi wasallam loolu moo may jooyloo de <coughs> wa xuraabul bayni mu ne nag li gën a tax may gën a jooy nag mooy mbëggeel gi ak distance bi nga xam ne moo tax sama diggante ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci zaahir maa ngi ca Koosi maa ngi Kaolack yonentu baa nga Makka wala Medina ak Makka ni mu soree Koosi ak Makka ni mu soree dafa ay weer la xanaa léegi la avion yi am boo xëyee waa Dakaaru rek balaay guddi rek nga àgg Makka de kooku xam-xam yi yàlla jagleel ñoon jamono la ngir xeetu yontu yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam de waaye sore dox na sama diggante moom ci zaahir waaye kenn gënu maa jege yonent bi sallallahu alayhi ci mbëggeel ak sama roowu de kooku mooy Baay radiyallahu hmm. wa ana man Baay Ñas sahraanun aji fog laa sajra sahraanun aji ngombalaan laa mooy kuñ comme ñu def nii ñun tey kooku mooy sahraanu ci arab xale yi war a nelaw teel a yeewu ñii jàngi ñii liggéey ñii jàppale seeni waajur déedéet kala yeb tay dañoo toog waaw lañu ëpp ci ñoom ngir bëggee seen soppe ngir gëbé ngir bëggee yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ngir gëbé bëggee bàyyi ci guddi gi ñëpp toog di xoole de mag ñëpp waaw lañu ëpp ci dëkk bi toog borom dëkk ak imam ak soppe yi ñoom sàmba ak ñëpp ak ñi ñi leen fekk si si karkat yi ñun ñëpp ñu bokk toog waaw di fàttaliku yaronte bi sallallahu alayhi wasallam di fàttaliku Mawlana Cheikh Ibrahima ci bëgg gi mbëgg yaronte sallallahu alayhi wasallam boku mooy loo xam ne mbir la moo xam ne moom mooy foog de bàyyi nag mu ne man it noonu laa mel ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam man tànku ko ci bésu gàmm rek foo ma fekk guddi bu jotee bu ñëpp nelawee man maa ngi xalaat yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba duma mën loolu bàyyi xaal boobu dafa nekkoon maqaama ci moom de sallallahu alayhi wa sallam wax na feneen ne tazakartu la nii nasitu muhammadan ndeysaan dafay dem di dem di dem ba ci kanam moom mu sadde ay fàttaliku naa yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaye nag eh, fàttaliku ma koo xam ne dama ko fàtte maa ngi koy fàttaliku waaye taxul ma fàtte ko mosuma koo fàtte waaye nag maa ngi koy fàttaliku mooy nag sama xalaat gën naa xóot ci moom sama mbëggeel gën naa yokku ci moom sallallahu alayhi wa sallam waanaa saxaraanoon wahazhazanii maa ngi fog munu maa nelaw wahazhazanii waaye maa ngi yëngule ana lan moo ma yëngal bu riyaaxi ëpp ngelaw ya ngelaw yaa moom ngelaw yu cofeel ak mbëggeel ak leer de fan la ngelaw yooyu di bàyyeekoo ñeeg bi xaay bu ci pàkk ya al awaali ya daway kay foofu mooy awaali awaal yi fa laa dëkkoon bi ma nekkee waaw a war de digganteem boo fa taxawee da ngay seen jumaa yonent bi sallallahu alayhi wa sallam boo ko doxee fukki minute ak juróom rek nga àgg de boo ko waree oto juróom minute nga àgg foofu bàyyi la wax ne foofu yëpp maa ngi koy xool maa ngi koy xalaat maa ngi koy teewlu maa ngi jooy ngir yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ngir bëgg ko kooku nga xam ne moom la yàlla bëgg te ku ko bëgg rek bëgg nga yàlla yàlla wax na ci alquran ne qul in kuntum tuhibbuna allah fattabi'uni yuhibbukumullah su ngeen bëggee yàlla bëgg leen topp leen ma man Muhammad yàlla bëgg leen de bàyyi mu ne dafa jël mbëggeelam moom yàlla tënk tënk ko def condition ne kenn du am sama mbëggeel lu dina da bëgg yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam de fatanat nii tilkal bi qaaw wa haajat fikrati is xusat bi xatmi risaali bàyyi mu ne fitnaal na ma sonal na ma tilkal bi qaaw yooyu le pàkk wa haajat yëngal na fikrati sama xar is ngir lan xusat jagleem na ko bi xatmi risaali ci mu jag yonent moo tax ma fitnaw lan moo tax ma jaaxle lan moo tax may sopp du dara lu may pàkk yooyu di Makka ak Medina di baqee di waaw Badar di Uhud ak yi ni mel nga xam ne yonentu fa la dëkkoon di fa jaa di fa dox man de loolu moo këf sama xol lu waral loolu gën ji mindéef lu waral loolu ki nga xam ne moom mooy xaatumu risalati moom mooy ngi mujj gi yonentu yi foofu la dëkk de sallallahu alayhi wa sallam de yii dalil fikri sama xalaat mat xal la mii tagg ku ñu wóolu Eh, yow sama xel mi ngi may jox xalaat eh yow sama baatin bi may tëbb waaye dolli ma waaye man daal bëgg naa xalaat bu gën a yokk ak mbëggeel bu gën a yokk ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam de wala taaba bul bul bul gàttañ lu xusuuran wala taaba bul daytalu xusuur ci gàttañ lu an darki zaakal ci jot moomu leen lef de te mooy dayoo mbëggeel yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ak janoog moom de jaxran waa ci du nelaw de alli lii nii sungale ma alli lii nii dolli ma mel rek ku la jox naan jus wala saafara wala sàngara ñun nag sàngaraay mbëggeel ci yàlla la ñuy naan waaye duñu naan sàngara bu xaraam wala cofeel wala mu may la xaalis wala mu jox la nga ne ko dollil waaye dolli ma dolli ma lu mu la jox rek nga ne ko dolli ma waaye moom it mi ngi wax ak boppam mi ngi wax ak xalaatam mi ngi wax ak li koy tëbb te moom mooy tëbbee naan dolli ma tagg yonent bi mu am rek ne dolli ma ndax man du ma doyal ci yonent bi sallallahu alayhi de ali nii nii ma ali li nii dolli ma bi mat yi ci tagg ko wan suri yi na nga ko wesaara tasaare ko nasra matul amini wesaaroo tagg kuñ óolu ki te mooy yonent bi sallallahu alayhi wasallam nasra ma xale tasaara wax de xale yi di nii ràngal ma da nga takkal ma bil mat yi ci taggam bi yoquudin ci caq maa ngi lay ñaan yow yonent bi sallallahu alayhi wasallam yàlla nag ma waaw décoré ci tagg bi ma lay tagg ni ñuy jigéen di takkee waaw takkaay ceen wala wor wala wurus bi gën a rafet ci doxam ak yaramam yow yonent bi yàlla nag ma taggal garaat goo xam ne mooy garaati tagg la ak bëgg la de ma raw ci ñëpp de sallallahu alayhi wa sallam de mat yi kaawteef tagg sama bàyyi nga yéemu ba yéem tagg gi muy tagg yonent bi sallallahu alayhi wa sax man man man man lan laay def man maa ngi tagg yonent bi te yonent bi sax ëpp na tagg mënoo koo tagg sax ba jot ko sallallahu alayhi wa sallam mu ne kayfa kaawteef mat yi tagg sama li man ñeel koo xam ne xat yi musuraaw ba ki néegi dëkkëréem ba dëngëréem ba mooy ëttam ba jibraayilu jibraayilu le moja man baa ñas naka laay taggee koo xam ne ah boo ko taggee tamit taxul nga wax wax léppam de kenn du yow yow muhammad sallallahu alayhi wa sallam muhammad mi nga xam ne jibril mu màgg ma malaaka moomu nga xam ne mboolem malaaka yi moo ci ëpp te moo ci ëpp doole moo ci gën a gaaw moo ci gën a jege yàlla muy jibril jibril moomu de nga sax am na ñoo xam ne duñ ko gis yonent yi am na ñoo xam ne ñu néew lañ ko gis waaw Moussa alayhi salaam yonent yàlla la woon moo ëpp ci yonent yi yàlla yónni lu jiitu yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam gis yonent bi sallallahu alayhi wasallam gis Jibril alayhi salaam bàyyi mu ne xam ngeen ñaata yoon la gis Jibril ñu ne ko ah naam ñes mu ne juróom-ñeenti yoon Moussa mu mag ma nga xam ne dafa daan wax ak yàlla muy wax yàlla di muy dégg yàlla di wax ak moom ba mujj dafa lox xam kooku waaw juróom-ñeenti yoon rek ci yonantam gi ci la gis jibril de te dafa xamoon de yonantu yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam bàyyi mu ne gisee naa jibril lu ëpp ñaari junne yoon kooku mu ne kooku fa la dëkkoon de ndax aaya bu nekk rek ñaari aaya yu nekk rek kawteef la te ñaari aaya yu wàcc yu nekk rek jibril dana wàcc te bu ñëwee yonantu bi dana janoog moom sallallahu alayhi wa sallam waaw nday ay sa mas naa gis yonantu bi soxnaa yonantu bi la benn yoon la ko gis waaye dafa mujj gumba de ndax képp ku gis jibril ku dul rek sa say bët dana sëgg de te ba mu koy gisit gisu ko ci jëmmam dëgg-dëgg daf koo gis ci jamono boo xam ne dafa dikkal yonantu bi sallallahu alayhi wa sallam ci melokaani jëmmi doomu aadama koo xam ne waa Madina la woon foofu la dëkkoon de wala waa Makka mu gis ko ci jëmm nit ku mu xam loolu sax moo ko oyofal ndax Jibril daana dikkal yonantu bi léeg-léeg ci jëmmam dëgg dëgg dëgg bi bu ko gisee dikkale yonantu bi dafay xaal di sotti ku ndox dafay xaal di di fudd waaw dafay yaramam day tàng dafay métti ci moom lool lool lool lool lool nag mu dikkal ko ci melokaanu waaw njanaaw léeg-léeg nag mu dikkal ko ci melokaanu jëmmi doomu aadama de loolu gënoon a bëri nag bi nga xamee nag jibril moom muy maan mu kéemaane moomu nga xam ne juróom benn junney mbagg la yore mbagg bu nekk rek tol na ni fii diggante fii ak asamaan waaw kooku mooy jibril de mbooleem xeet yi nga xam ne yàlla halak na leen ci lu jiitu xeetu yonantu bi sallallahu alayhi wa sallam lu jiitu yonantu yonantu yàlla moom sallallahu alayhi wa sallam xeet yi yàlla bind kenn xamul nu mu toll dañ daan nekk ci kaw suuf di mooy yàlla rek yàlla meree rek yebal jibril jibril moo ñëw rek xaacu rek dafay yuuxu rek waaw ñëpp dee de mu yëkkati ay doj sànni sànni leen ko muy jugee ci kaw di wàcc seen kaw rek àddina lépp dee ba kenn dootu des damay benn nit wala yu mel noonu su ko defee ñooñu juranteaat ba ñeneen judduwaat de noonu la yàlla daan xalakee teer yi de yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla def koo teral ne ko yow man duma la teg sa xeet la ma tegoon xeet yi jiitu de yonent bi ñaan yàlla yow yàlla maa ngi lay ñaan sama xeet yàlla bu leen xalak li nga daan xalakee xeetu njëkk yàlla nangul ko ñaan gi moo tax lu ñu mooy mooy yàlla lu ñu mandi mandi lu ñu def lu safaan kenn mësta gis xeer wu wàcc jógee ci asamaan wala waaw jóge ci suuf dal ci kaw xeetu yonent bi kooku garanti boobu yonent bi moo ko ñaanoon yàlla de jibril moom moom moom moo daan def yooyu de jibril alayhi salaam képp koo xam ne ni yàlla yónni la la te yonent saa salaam mooy mujj ak yonent yi jibril moo daan indi wax yu gi di la wax li yàlla di wax boo amee looy wax moom ngay wax mu dem wax ko yàlla de moo dox ci diggante bi de jibril moomu nag bàyyi mu ne bëkk néeg la woon ni ma xale yii di lijjante di ma toppatoo di ma teeru di ma gunge di daw di dama ko ñëw da nga jibril moom ci la dëkkoon duggutoon ci buntu yontu bi la taxawoon rek sa alayhi wa sallam di ko lu sa yontu bi soxla rek mu daw dem doxi ko ñëwaat loolu day wane màggaayu yontu yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam moo tax bàyyi mu ne naka taggee koo xam ne màgg mi sax sa bëkk néeg la woon de sallallahu alayhi wa sallam tuural la yàlla yi nag waxuma benn guddi déedéet wala si yeneen guddi waxuma benn bëccëg déedéet daa iman abadan daw man ci la dëkkoon de sallallahu alayhi wa sallam di ko xidmaal de kayfa mati lawo wasal kawnu turan min sanaaw wazaka zeynu rijaali kay fa téef mat yi tagg sama lahu ñeel ko moom yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam wasal kawnu bilee bilee mbindeef te mooy àddina bi ak lépp lu ci nekk ak mbooleem mbindaafoon yi turran mboolee seen min sanaa wajutukee la ci ci leeram gi de lépp lu yàlla amal yàlla nga ko amal ci leer ak yonent bi kon kooku lan la moo koy tagg man bàyyi lan laay wax koo xam ne lamp yi tàkk sa leer gi moo koy leeral leeru yonent bi mooy leeral suñu bët yi ñuy xoolee bay gisante leer dëgg-dëgg yonent boobu moo koy tëbb moo tax ñu gisante bu amutoon duñ gis de leeru yonent bi sallallahu alayhi wa sallam haqiqatul weer wi mooy leeral biddi wi mooy leeral jant bi mooy leeral bëccëg leeru yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy leeral xol yi kon kay kooku waa mooy nuuruhu awwalul wujudi wujuda wa aslul usuli wala njaali ne mooy leer gi bàyyeekoo ci yàlla waaw nekk leer goo xam ne ci la lépp di jumoo de sallallahu alayhi wa wala kooku may tagg nag borom leer googu bàyyi mun a zeynu rijaali mooy taari góor ñi de góor yëpp buñ taxawee yonentu moo leen dàq sallallahu alayhi wa sallam way njëkk mujj góor yëpp buñ taxawee moo leen ëpp kàttan guddut ba gudd ayibal ko gàttut ba gàtt ayibal ko yonentu sallallahu alayhi wa sallam dafa diggu doomu de moo tax moo xam ne xeerul umur yi aw satuwaa gën ji mbir yëpp mooy li gën a diggu doomu de yonentu sallallahu alayhi wa sallam ñëpp buñ taxawee wala buñ teewee moo ci ëpp fit mboolem lu yàlla bind moo la gën a jàmbaar du ragal mësta daw mësta yokkat mësta tiit mësta gestu gannaawam de ku ne da nga soxla wala nga ragal wala nga am kumpa gestu waaye yonent bi dund na ba génn àddina mësta gestu sallallahu alayhi wa sallam de na ba génn àddina weñ mësta taxaw ci kawam yoo mosu ko màtt sallallahu alayhi wa sallam ne kooku la yàlla teral yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bàyyi ngi way di ko tagg mu ne kay fa kawteef mat yi tagg sama yonentu yàlla muhammad fa niiraanu safara yi kadaalika noonu ala njumu biddiw yi nasurun lu néew la min nuuri ci leeram gi al mutaaliba daañu kawe leen saf tàkk-tàkk safara ak tàkk-tàkk lan waaw biddiw yi wallaahi lu néew la ci leer ak yonent bi sallallahu alayhi wa la rek benn flash bu ndaw la rek bu bàyyeekoo ci leer yi dëgg-dëgg yonent bi moo leeral leer yooyu de sallallahu alayhi wa sallam de kii tagg na ko de kay fa kawteef mat yi tagg sama la woon yàlla ko yoon moom yonent bi te ñeel na ko albihaaru géej yi kadaalika noonu al antaaru da nga waaw taw yi de nasuru lu néew la min juuti yi ci taw nga mu taali bara di kawe gis nga géej ni mu yaatoo mu ne mën na cee sëmb te du ngacc géej àddina yëpp mën nañoo naan ci géej bi ci sangu jëfandikoo te du xaaj de mu ne nag loolu li mu bëree ak taw bi wàcc ni mu bëree si nga buy taw mu ne loolu li muy tabe tabe wallaahi yonent bi sallallahu moo gën a tabe loolu de te loolu lépp ci mayam mi la bokk sallallahu alayhi wa sallam kayfa kaawteef mat fii tagg sama loolu ñeel ko moom yonentu sallallahu alayhi wa sallam ñeel na ko al ulumu mboolem xeeti xam-xam yi jamian mboole seende xatratun taqilla min fitahlihi sa yàlla ci xam-xamam bu jéggi dee buy sotteeku de xam-xam yëpp boo leen dajalee toq toq ndox mi mel ne yow mu jël sa mbuusu ndox rek di toqal nii muy toq noonu la mel xam-xam yëpp boo leen dajalee toqati toq ci ndox la गे जी बाम सनगरमरमी de ma jaa man Baye Niass naka lay taggee koo xam ne yàlla tagg na ko ci alquran taggati ko ci alquran taggati ko ci alquran taggati ko ci alquran yi aaye di wàcc rek di ko tagg ba ci gën a fës mooy wa innaka la ala xuluqin azimin yow Muhammad yaa ngi ci jikko yu kawe kawe kawe mbooleem lu ma bind yaa ko gën a rafet jikko sallallahu alayhi wa sallam de kayfa mathi muhammadan wa wa ruhul mathi aqwa muddaahi fi kalaali kayfa kawteef mathi tagg sama man Baye Niass muhammadan ma jaa naka lay taggee muhammad o moom muhammad ruuhul mat yi mooy ruuhu mat ruuhu tagg de jëmmi doomu aadama ana moo koy dundal roo jëmmu doomu aadama lu koy waxloo roo jëmmu doomu aadama lu koy xolloo lu koy dégloo roo jëmmu doomu aadama roo bu bu génnee rek mu dee nekk néew ñu suul ko de waaw kon roo moo ëpp solo ci jëmm ji de kon nag su fekkee ne tagg ci boppam yonent bi waxuma mu ñu koy tagg waaye bu dee tagg roxo la moom yonent bi sallallahu wa mooy jëmmi roxo kon man bàyyi naka laa koy taggee de kooku ëpp nañu tagg ko sallallahu alayhi wa sallam de kay fa kaawteef mat yi tagg sama yonent boobu nga xam ne mooy roo tagg te aqwaam mu daax yi gën jaag foor gën jaa dëgër gën jaa kawe ci takku na fii kilaa ji nekk ci dana de lu ma ko tagg tagg nag man bàyyi li ma waxut moo ëpp de lu ma tagg tagg yonent bi man bàyyi ci sama xalim baa ci sama wax li ci sama xol bi moo ëpp li ma waxut de sallallahu alayhi wa sallam kayfa idan taksarul kulli baan xaamidal fikri anta zu iqlaal yi ma ngay oyofal boppam nag di toroxal boppam ci kanam yàlla kanami jaamam yi de mu ne kayfa kaawteef is anta yow bàyyi anta aksarul kulli baan ñëpp yaa leen gën a gàttañlu m lef waaw xaamidal fikri ko way xalaat nga yow xalaat umm nga borom ak néewal nga naka ngay taggee yontu yàlla mu bëri la mi de koy fa kaawteef nga koy taggee moom yontu yàlla Muhammad sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi a laakin wante dafa nekk xër wi laggal mooy gaawal te tafal na nga xale xalelu li tul ngir fekkeef la fii jumuyul mu daahi nga bokk ci mbooloom ñi koy tagg xam la na waa njëkk ak may gi de xum jugal waxarwil na nga gaaw na nga lagg na nga lagg wastan ji dan sàkkoo ndimbal ci yàlla mi am ndimbal aw na rabbin maalikin ndimbalu borom bi nga xam ne moom moom lépp te mooy yàlla ne ma baax na lool ba jéggi dayoo al aw nu ndimbal ndem ndimbalal yàlla de min zil jilaali mu tukkee ci borom ak màggaay de kooku mooy yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi kooku mooy moolana cheikh ibrahima radiallahu anhu nga xam ne waaw tagg na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci xam-xam tagg na ko ci taar tagg na ko ci jikko waaw mi koy tagg nag ci askan yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam habaza sirku nisbatin nasabatu sunnatul mustafa saduqul maqaali baax na lool sirku nisbatin nisbatin de mooy waa askan boo xam ne nasabatu askan na ko sunnatul mustafa sunna kuñ mustafa saduqil maqaali ki nga xam ne aji dëggu ji wax la de bàyyi mu ne yonent bi gi xeetam moo gën ci xeet de yonent moo ko wax mu ne man maay kuñ tànn bàyyi koo ci luñ tànn bàyyi koo ci tànn mboolem lu yàlla bind mën na ci yàlla tànn bi gën ci néeg yi mooy néeg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam de xeet bi gën ci xeet mooy xeetu yonent bi mooy xeetu arab de dara maraw yi lan loolu ku ma yonent yàlla moo sallallahu alayhi wa sallam de mboolem xeeti yàlla bind yëpp umam yëpp xeet yonentu yàlla muhammad sallallahu alayhi wasallam moo ci gën a tedd lan moo leen may loolu la ñu ko may ñun moo yonentu bi sallallahu alayhi wasallam de kuntum xayra ummatin axrajat linnaas loolu alquran la yéen xeetu muhammad nekk ngeen di xeet bi gën ci xeet yi ma mas a amal ci àddina bi yëpp yéen yéen ci gën de alquran leeral ko taamuruna bil maaruf wa tanhawna anil munkar wa bàyyi mu ne boo jàngee la topp ci laaya ji ca ngay xamee lan la xeeti yonent bi sallallahu alayhi wa sallam gënee yeneen xeet yi de lan lañ gënee yeneen xeet yi alquran wax na ko kuntum nekkoon xeeru um, nekkoon ngeen xeeru ummatin uxrijat linnaasi lan la taamuruuna bil maaruufi da ngeen di digle lu baax te di ko jëfee wa tanhawna anil munkari da ngeen di tere lu sopp luñ sib te di ko moytu wa tuminuuna billah te da ngeen di gëm yàlla seede yàlla arhamukallah yooyu de moom la xeetu yonentu gënee moo tax wareef la ci bépp jullit wareef la ci bépp borom kër wareef la ci bépp njiit wareef la ci bépp daayira wareef la ci bépp dëkk wareef la ci bépp société bu bëgg dem ñu gëm yàlla gëm yàlla mooy cosaan wareef la ci ñoom ñuy digle lu baax tere lu bon réew moo xam ne ña fa yore kàddu duñu wax digale lu baax réew moomu du dem dëkk boobu du dem xeet boobu du dem de réew moo xam ne dañuy def lu bon ñuy xoolante di seetante di raayante kenn du ñemee wax kenn du ñemee addu kenn du ñemee tere waaw ku ko réew mu ko def rek dangay dellu gannaaw da ngay daan ndoo dem kër gu ko def noonu réew mu ko def noonu dëkk bu ko def noonu mbokk yu ko def noonu de foog am ci seen biir ñoo xam ne dañuy waxante dëgg di laayante biir de wax dëgg te di ko jëfe tere lu bon te di ko moytu boole ko gëm yàlla loolu la ñuy gënee de yonentu boobu nag bàyyi tagg na ko mu ne mu ne saduqul maqaal la maanaam ku dëggu wax la ñoom yahud yi ñoom waa màkka ñoom ñoo tuddee woon yonentu bi sallallahu alayhi wa sallam muhammadul amin mooy muhammad mu ñu óolu mi bu ñu koy tuddee loolu boobu alquran wàccagut de boobu yonentu gi feeñagut de sallallahu alayhi wa sallam bi nga xamee nag ne toog nañ benn bés ñuy weerante ci xajar ci waaw xajarul aswad ana kan moo koy teg ci kaaba gi de ñu ne xeet bii moo koy jël ñee ne déedéet kër gu ne rek xeet bu ne rek nañ ñun ñoo koy jël duñ nangu jox ko keneen mu teg ko ci kaaba gi mu nekk woy boo xam ne nii daf koy woyee ñu di ko tagg ñun duñ ko am ñu ñaanante loolu mu jigéen ñu waxtaan ñu ne ñun ñii di ko xëccoo ñëpp ñàkk nañ ko nañ ko xañante suñ bopp nañ toog nii jaayante ko ñun duñ ci bokk comme xëccoo nañ déggoowuñ bokkatuñ dañ toog fii app ko fii ba jant bi so buntu sàngam ci kaaba ci ci ci ci kaaba bi ci ci ci xaram bi nañ ko bàyyi noonu ku ne njëkk na tëll rek ñu xam ne kooku moom wantale bi ci kooku la dal su ko defee kooku la ñuy bàyyi mu ñëw te ko ñun ñëpp ñu ñàkk ñàkk koo teg rek ñu toog di nëgandu yàlla téye ñëpp yàlla mi moom yëf yi di ko contrôler dara du réeru ko te dara fàdduwu ko waaye ñëpp kenn amut ittee buur jug dem jaar ci buntu boobu di toog toog toog toog toog bay bëgg a xaddi rek jëmm joo xam ne nii mboolem jëmm yi moo leen gën a taaru jëmm yoo xam ne boo ko gisee sa fiddu yëpp dafay dem waaye sa cofeel dafay yokk ci moom sallallahu alayhi wa da nga koy waaw wekk ko waaye da koy bëgg de sallallahu alayhi wa sallam jëmm joo xam ne boo ko gisee da ngay da ngay kontaan bég loo ko non non non boo ko xoolee sa xol dana am lu mu yëg de kooku mooy yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñu toog rek yonent bi ne tëll rek ñu ne Muhammadu Lamin a ngi noonu mu ngokk kii sax ñun ñëpp ko wóolu sallallahu alayhi wa sallam mu daago daagoom bu tempo bu rafet boobu nga xam ne du yàkkamti du daw di dox dox boo xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa bàyyi mu ne bu daan dox ci suuf tànkam bi du marqué bu doxee ci doj nag tànk bi marqué ci doj bi sallallahu alayhi wa sallam yonent bi amutoon takkandeer comme ñun ni garab amee takkandeer ak jëmm ju ne ci jëmmi mbindeef yi ak jëmm doomi aadama boo doxee jënt yor yor yaa ngi gis sa takkindeer yonent bi moom amutoon takkindeer sallallahu alayhi wa sallam de bi nga xamee nag ne bu doxee ci suuf suuf si dafay wax ne waaw sama tërëdi gi sama ñagas-ñagas gi duma ko wan yonent bi sallallahu alayhi mi tax ñu bind ma loolu ñàkk te teggin la ci man malaaka bi sant ko ci ndigalu yàlla dafay set dëgër dëgër ba pare dajaloo nooy nag nooy nooy nooy ba mel ni witteen yonent bi sallallahu alayhi waaw di ci dox de moo tax bu doxee ci suuf um, tànkam du marqué sallallahu alayhi wa bu doxee ci doj nag doj yi dafay wax ne sama dëgër gi dama ko wan yonent bi sallallahu alayhi mi yore doj yi moom moo ko wax naan yàlla nee na nga nooy su ko defee dafay nooy ba gën nooy witeen waaw sallallahu dox ci kaw doj yi nag doj day nooy ci moom waaye nag doj jaar rek tànkam mi dana ci marqué sallallahu alayhi wa sallam yonent bi daagu di dox di dox ñu di ko xool muy dox dox ba agsi ci ñoom ñu ne ko wante li ñu defoon de yàlla yow la ko jagleel xajarul aswad gi nii mooy xeer woo nga xam ne aljanna la bàyyee ko ñëw ñu def ko ci xajarul aswad dafa dañoon ci place am ñu doon defaraat kaaba gi ñu ne nag kan moo koy delloowaat delloo boobu moo fa nekk ba léegi mooy xeer wu ñuul woowu ñuy aji màkka di ko foon di dugal seen bopp yi di ko foon